ñëpp ne teg mooy ndax daa sori bokk moo tax mooy nii rek laa meloon ci biir tubaab yi mu taal ci ak xasida ci laa mooy gi ma ubbee noonu kon ci ndigalul ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd biir ñuy jot li kàddu yi cant ak ngërëm jëme ko ci al umma islam yi bépp waaye jëme ko ci mboolem taalibe Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ndigal lii ñoo ko tax a waaye jëm ci cépp koo xam ne na ko sëriñ bi waxoon rek mbégam si mbégam mooy bokk jullit yëpp ak bokki réew mi kon sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di ndokkee ñëpp ci gan bu mag bu tëdd gi nga xam ne mooy bëgg agsi di weeru safar te safar bu ko tuddee ñëpp xam ne de yëpp dem fukk fan ñett mooy bi nga xam ne ci fi sëriñ bi bàyyi ko woon dem liggéeyal boromam ba làq ngërëm mooy liggéey bu màgg boo xam ne lépp lu ñu am rek ci lañ ko am kon nag na ko sëriñ moo tax képp ku fi nekk sëriñ Tuubaa bu fàttali bokk taalibe yi di bokk jullit bis bii nag Cheikh Mouhamadou Mountakha wax ne ñëpp dañu ko déggaat ca làmmiñam sax feek bisu tey bi dellusiwaat waaye ne ñëpp maase ci xam ne mooy bis bi nga xam ne sëriñ Touba ko santaane loolu boppam santaane gi jëmu ci sant ko sa ëllëgee waaye ci boppam la ko tàmbalee ndax dégg ngeen ci taarix Serigne Moulay Bousso béy wi nga xam ne magam Serigne Mouhamadou Bousso di xelif Serigne Bakk Bousso moo ko joxoon Serigne bi àddee jaarale woon ko ci moom sëriñ bi dénk ko ko ba soppi lu ko am xar.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 suñu boobu lépp lu mu santaane lam lam jublu ci ndigal la moo ko xam waaye Serigne Touba itam lépp lu mu ñu digal lu ne la tax mu dil ñu moo ko xam ndax mooy li gën ci ñun daanaam ba ko mag ñi laajee dañ ko ne dane néewuma moo gën tabaski waaye yéen moo ko gën ci yéen loolu wax sëñ bi dégg ngeen ko ci suñu sare bu nekk la ko kon màggal gi nañ xam ne bis la boo xam ne sëriñ bi doo ko fonkoon واحنا السبب غيبتي ان الله اراد ان انال منه الجاه وان اكون شافعا لقومي وان اكون خادما في الدم كون لور رك دم ليجي رسول الله صلى الله عليه وسلم موي ليجي بو تاد بو خامني سيرين بي واخنا ني بوكو ني سي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بو كريو بو ليك كون بيسو ماغلا بو خامني امول لو ني واخ فيري بو ني وانا واني سين واخ جي داخ ميغي جاخس سوني كاد ñi wax ci salle bu fekkee dañuy liggéey nañ dem ci salle bi loolu kon sëriñ bi nañ xam ne bis bi fonkoon na ko itteelal na ko dara taxutoon itam mu def ko lu dul xeetali bindeef yi ak daraja ji nga xam ne waroon na ko mooy lii mu am tey abdullahi wa rasul ba muy dem nag da caa wéetoon lool نا انتون كان يوبالو كان استخلصه لنفسي لا واخا ديم ليغي لي با ديلي شوات اند اك نام من خنا مين تول رك غاتش نيوكو دو يوب تول ناني واي بام نيبيسي نك لم ديك واخ موي عفوت عن الاعداء ترن لو شيم نفاهم دي خير سمد نسالهم جيغن نا سما نون ييب موتاخ لا سوني كيلفا بو باخ كدا واخ شيخ عبد الاحد باكي كو جيغل اي نونو كين دوكو خيخلات اكي نونو سيدنا توبا ديغ دا نو ييب لولو ديك واخ بام نيك نيكي تي تودي با توكي با دي واري ني بيسيتام لا بين نياري بيت اجعل وجوهي الى قومي سعادتنا والتكفينا يوم الجمع الخلق نيرا كون بيلو بيم ديل سوات موي تخيك بي ديف وخاتيتنا لي اوصي لدسي اريد وانفعي بيل ولا يا مخني عن فاي بارنا فنكو بيد كون bi mu ñibbisee nag yéene lépp la mu fa jële moo tax mu yëkkati woote bi nga képp koo xam ne bëggam sa bëggam baax na ko ci sant yàlla sant la yàlla ñaanu Sëriñ Tuubaa nag lépp lu mu digle rek suñu borom a koy def ci xol yi ñu nangu ko ndax ñëpp maase nañ ci xam ne màggal Tuubaa nekkatul yëfi yoonu murit wax ashhadu an laa ilaaha illallah ñëpp maase nañ ci nangu ko xam ne seen ndama xam ne seen bisa xam ne seen xetlukaay la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 nawaytu shukruhu bi far fardin wa sunan indahuma wa inda daaratil minan kon lëkkaloo gi màggal gi xëttalu tàmbalee daaru salaam ba si daaru minan ak ak ak si daaru foofu lépp sëriñ Tuubaa bi doon kon nag noonu la ko sëriñ bi woo xam ne màggal gi ak kenn ku ci ne na nga koy dundal di sant di ko sant yàlla ci bis mi bi mu ñibbisee Tuubaa itam ci ku njëkk wuutu ci ay doom di ak Cheikh Mouhamadou Moustapha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 sa baay di nee na ma jaamu yàlla baax na fu ne waaye sakkane na Tuubaa mu ne ba ma déggee loolu ci laa lam ñam ci laa tàmbali koor kore tëbaseeg màggal lépp ma di ko def Tuubaa Sëriñ Saliou Mbacke itam ak mu jot bu commencé di woote ñëpp dégg ngeen kàddu yi ci daaw loolu doy na sëkk ab solo mooy la ci sëriñ bi boo ne ñaar buñ deddee kii di ko màggal kii di ko ñàkk màggal bu yàggee waxtu wu ne ka koy màggal dana seen lu muy tiim ka ko kon màggal gi foofu la tollu sëñ bi Cheikh Abdou Khadre daa nett ne sëñ Modou Moussa moo ko wax ne ñu demee ba àgg àjjana àjjana amutu waaye suñ borom ca kàttanam moom ma bindoon bind bis yi weer bind guddi ak bëccëg kenn ku ci ne bu mu bis ma ba màggal gi daa ak kenn ku da ngay xéwal gu dollu ko ci yow xam da nga xam ko kon màggal gi nañ xam ne mooy suñ mooy suñ bis bi bi nga xam ne ndigalu sëriñ bi ginnaaw Serigne Saliou itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw di njëkk a wutu Serigne bi ci ay sëtam wóyule ko ne ko Serigne Saliou Mbacké daa defee ba kuréel gi nga xam ne tey mooy saytu màgget bi yàlla def ci biir ixtilaafam lañ ko tàmbali woon ba léegi ñu du ko doxal ba yàlla def mu wuyu ji itam ak Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké ñëw moom itam wóyule ko wóyule ko ne ko kilifa bu njëkk daa defee.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 muy loo xam ne ñoom ñëpp ko ko yéene waaye moom li mu waxaloon fii boppam ci jataay bii rek mooy su mësuma ko séntu mësuma ko xalaat ndax ku ne xam na ne toog na ca màggalu Porokhane di ba ci wax di wax ci diggante ak Cheikh ba àgg ci xaw wax ne bu soñoon jiitu ko kon loolu te Cheikh Sidi Moussa dégg naa ci lam moo seereel ko ne képp koo xam ne yëkkati nga àddee ba ko jox Sëñ Tuubaa boo gisee Cheikh Maodo Mountakha bu ko fa weesu wax ne sama jëmm yi moom rek ma ci doy sama ginnaaw kon diggante njabootu Sëriñ Tuubaa gi de saxaabatu rasul la leen suñu borom wax taggewoon ci alxuraan rek moom la leen yàlla defal mooy wa yu'thiruuna ala anfusihim wa law kaana bihim xasaasatun loola itam njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp moom la leen yàlla defal ndax moo fi moom mi fi nekk Sëriñ Tuubaa kat njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp ko maase nongul ko ñoom ñëpp maase ci yéene ko jotaay bi ñuy ñaan mu yàgg fi te ànd ak biir kon nag xam naa ne wax ji du gudd xanaa sant rek la la ñuy njëkke cant gi kilifa yi àndi woon kenn ku ne Serigne Touba rek xool ci moom kon sëñ bi ne seenu cant wax na ko bu yàggul ci Korite wala Tabaski seenu cant lot na ci wax leen ndax ñëpp xam nañ cër bi ñu ko jox nee na ko mu leen sant leen gërëm leen ñaan itam bu baax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 lambo waxoon jappon na ni sax taxawal kër sa bokku ci biir jaay jaay gi jaay do seigne touba ñom dañu jaay ñu seen lépp ngir jënde ko nak ñoña yàlla defee leen basiiratu basiiratu bu sori mooy ñaanaloo Sëriñ Tuubaa ndax xam ngeen topp sëriñ booba yombut kon ñëkk ñi ko topp nañ xam ne ay jàmbaar lañ yoo xam ne seen taxawaay boobee na ko alxuraan waxe rek allazina tabaxoo fi saati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 am na ku ñuy wax Serigne Banda Sow da ngeen ko dégg ci waa kër Serigne Touba ci ñoom laa ko la dégg Serigne Abdou Khadre ak Serigne Saliou ak Serigne Chouaib bi ñu ko fa nga ko ku dëddu ku dëddu woon adduna la am na ci loo xam sax mënees koo nett la ci mbooloo waaye loolu Serigne bi da ko xam ne seen yëpp dañ ko denc ngir ëllëg soxlu daree at daree taw daree daree tay ñooñu ak leen fàttaliku di génn waa seen bi bokk na ci liggéey Serigne Touba kon Serigne bi neen mi ngi sant ñëpp digal ñëpp. ci biir cant gi itam nag ginnaaw bu mu sante bokk yeeg taalibe yëpp mi ngi sant nag taalibe Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne nag ñoom fu yoon wi àgg rek seen taxawaay ak seen pëstéef ak seen dogu moo ko ndax xam ngeen ne kat la Sëriñ Tuubaa woon ca jumaay jaari bi mu koy wote dama waxoon ne rikki nag maa ngi leen wattandikoo lépp ndimbal loo xam ne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 woote jumaay Serigne Touba yi booba jafe woon na lool ndax ci boo fekk na guerre 14 18 daa jeex tuuti sëriñ bi ñibbi si Touba xam ne bi Serigne bi ñibbi baat nit ñi dañoo def ñetti kuréel ñii ñëw ànd ak man ñii wan ma ginnaaw ñii na nañ ne tekki di xool ba xam dana danaa mën a dem déet ñaana ba ma gisee loolu nag.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 ci condition yooyu lañ liggéey jumaay Tuubaa kon jumaa ji tey bu doon natt xiibaam kenn mënta xam fu ndax loolu boo doon xool tey liggéey yi ni toll ci àdduna bëree ci jamono jafe noonu lañ ko def nga xam ne ci tool yi àllarba ak ak ak mbay bi rek boobu jamono ji melagut nii ndax nit ñi dara ci foofu lañ tàmbalee liggéey jumaa ji Tuubaa dara néew amagul titre foncier amul dara ab àll na waaye ñu xam ne Sëñ Tuubaa lépp lu mu bëgg rek suñu borom noppi la ca ñu jub na ngir gerte lu ñaanu sëriñ bi moo jafewoon lool Cheikh Mouhamadou Moustapha ci jamono yu jafe noonu la ñëwee te xam ngeen ni jumaa ji boo suuf si amagul titre foncier bokk na ci yi ñu ko gàddoon bokk na ci raay bi ndax tubaab bi bi Cheikh Mouhamadou Moustapha di autorisation bi ndax xam ngeen ne sëriñ bi ngi njëkk bindu autorisation bi ndax moom.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 sëriñ Saliou Mbacke daana ko nettali muy wax ju ko wax ju ko safti yën ko waxtu ne dama ko fàttali biñ ñëwee di ko wax ne ko dangaa waroon wax sëñ mu soppi la ndigale ndax fi jamono toll kenn amatul dara te guerre bi am tax na seng ñëwut yaakaar naa bu ma jóg 1918 la wala du ko sori ak Cheikh Ibrahima Faty ne leen néew ma xaw ma seng ak fi jamono toll waaye yéen itam xamu leen sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa lépp lu mu santaane dana am te lépp lu ma diggale dina ko ba mu ko liggéeyee ba liggéey ba àgg lu ci ne ay tonn ci desoon kon loolu mooy liggéey sëriñ bi ginnaaw itam ak Cheikh Maodo Fadil ñëw fekk fa Cheikh Maodo Moustapha tàmbale woon moo sose fa liggéeyu sëriñ Tuubaa bi ànd ko njabootu sëriñ Tuubaa gépp ci jamono ju naqari 1945 boo xam ngeen ne jamono ju neexatoon dañ daa def bu nawet jotee bu Cheikh sépp demee bay ba tool yi jeex kenn ku ci ne ñu jox law sas nga jox ko ñi liggéey noonu jumaa yi bu nawet bi ak sas léeg-léeg liggéey liggéey bi dana taxaw kon xam ngeen ne jamono ji neexugutoon loolu lépp itam ngeen gis biirum Sëriñ Tuubaa ni mu dolli ko noonu la Cheikh Mamadou Fadel jëli liggéey bi ci màggam ju tedd ja wóyal ko ba liggéey bi àgg ba mu indi ko natt dëkk bi ubbi yoon wi ba yàlla def ànd ko njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp ba yónnee ak si fii kon seen taxawaay yooyu lu mat di fàttaliku la ndax moom ak Cheikh Mamadou Cheikh Mamadou Moussa Cheikh Mamadou Fadi Sëriñ Tuubaa leen digaloon fekk na ko jëkk daanaka bind sëriñ bi ay leetar yu bare ba di ko laaj digal bi nga xamee ne nag sëriñ bi tàmbali na joxe na liggéey ci jumaa ji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 li ngeen di tuddee transparence tey loolu ñëpp ko war a ñaan ci ñoom te booba dafa daaj ay gaan def ci ay xom ngir bañ rek addi yi ñu ko jox mu jëm Sëriñ Tuubaa bi jàdd benn danaa wax ne alal yi jëm jëfandikoo wala ko ko dugal furul ci yëfi Sëriñ Tuubaa yi daanaka toogee nag kon ñoom xamoon nañ li yoon dugal ba moom itam mu def fi liggéey yu bari yoo xam ne forom bi teg si ba ginnaaw bi tam Cheikh Abdou Khadre Mbacké ñëw xam ngeen yàggul fukki weer ak benn rek la def ginnaaw bi tam Cheikh Salif Mbacké ñëw moom itam wéyal liggéey ba nga xam ne kilifaam yooyu moo leen ci sumboon ba dem ci ay sumb bi bokk na ci li defaat ci jumaa ji ak barabu sëriñ waaye assainissement bi ñuy wax yi nga xam ne moo jaaxal dëkk bi sëriñ Salif ci alali boppam moo njëkk génne bi ma juróom benn téeméer bi ñoo def ko ci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 moom itam fa way juróom ya tegoon tànkam rek la ko teg ñaari at ak genn wàll yi ñu fi am ñëpp gis nañu taxawaay mi ci biir yoon bi ak ubbiku bi mel ne way juróom li muy gàtt gàtt jëf na fi loo xam ne kenn du ko ci njàmbaar ak bëgg Sëriñ bëgg yoon bi gaa ne amul jën yitte ju loolu ba yàlla fi ak liggéey mbat ak Cheikh Sidi Moussa ñëw moom tam ba mu ñëwee fa ko kii fa kilifaam yi tegoon seen tànk rek fa la teg mooy woye liggéey bi ci taxawaay bu ma sëkk ba sumb fi sumb yi nga xam ne ñëpp teg nañ mooy jumaay ji ak jumaay Dakar ak kër Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne Sëriñ Saliou moo moo ko tàmm doon joxoon ndigal waa ko ndaw foofu suñu waaye mu ba naal fa lépp sotti ci kanam ak yeneen yu bari yoo xam ne jotaay bi laaj bi dugg li mu xëy na ci biir màggal bi du ci ñàkk kenn ku ci ne waxtaan wu ñuy waxtaan teew ngir fàttali nit ñi sa jaay ak sa taxawaay ba yàlla def ab liggéey mat Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw liggéey yooyu moom itam mu tegaat tànkam fa kilifa bi dogal seen tànk ci woy liggéey mooy àggale naa li nga xam ne bàyyi nañu ko fi Cheikh Sidi Moussa bàyyi na ko fi mooy jumaa ji ak jumaay Ndakaaru yi waaye mu sumb nag. sumb bopp bu rëy yi nga xam ne mënees naa wax ne moo fi desoon ci naali Serigne Touba muy université bi ba mu ko sumb yi muy naalu bu rëy rëy wax ne ba ba mu ko leeralee wax lim bi ni mu nar toll ñëpp dañoo jaaxle ngir gis mbirum Serigne Touba la mu waxoon ne bismillaahi yan mooluha yi bilaa manaahi wala bisaani saa su xëyee rek ay mayam da yokk loolaa jëfe ci diir bi mu fi toog gis ngeen liggéey université bi fa mu toll daanaka mënees naa wax ne la ca des sooy ba ci kàttanu Yàlla sëriñ Ahmadu Badawi yi ñoom ñi nga xam ne ñoom la koy taxaw noonu jàpp nañ ne bu àllee dogalu suñu borom xëy na taaw sax lañ bëgg mu ubbi waaye xam nga ne ndax day bari lu laaj xalaat yooyu ci sëriñ waaye bu àllee mën naa ma leen ji dina bi mu mu jëm ko la ca war sëriñ bi ci taxawaay ne lépp def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 waaye saa la cës ba jub bu àggee ba jublu ko ba xel dal ci yor bi ndax xam ngeen yor bi yëpp li ko tabax li ko yoru ko yëpp waaye incha allah xëy na balaa mat diir bu gàtt wax ne dana jeex ndax la cës ñu ji lu mu ji ci xaaj bi njëkk bi bu xaaj bi njëkk bi ubbee nag ba mu tàmbali sëriñ bi na yitte yëpp doo ko jooyal ci ndoxum Tuubaa ndax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 waaye sëriñ bi nee loolu mooy itam ndax moom kat xam ngeen ne itam jëpp yërmande ji nga xam ne wala chumahil xumam yi moo nekk ci moom ndax képp ku fi nekk sëriñ Tuubaa kat da ngay am yërmande ci taalibe bi ak njaboot bi te xam ne dëkk bi fi ñu toll metti na ci nit ñi danaa ci dégg si waat moo tax xalaatam yëpp mooy nu nit ñi gën mën a nekk ci jàmm ba tal seen jàmm yàlla ba tal mën a liggéey sëriñ Tuubaa talit may nekk ci jàmm ndax wabtaxi fii ma aataaka llaahu daaral aaxirata wa laa tansa nasiibaka mina dunyaa ni ko doomu aadama war a dundee ñu war ko dundee kon loolu mooy li jëm ci wàllu loolu sëriñ bi nag nee ñu ngi soññi bi Sëriñ Tuubaa yëpp ñu xam ne lépp lu def rek ci war a jiitu ndax yoon bi noonu la ko Sëriñ Tuubaa sukkandiku si te xam ne dëkk Sëriñ Tuubaa bii. fu mu àggee taalibe Sëriñ ñoo ko fa àggee xool fi nekk ci ay bâtiment dañuy tuddee bâtiment yoo xam ne bâtiment yu buur la néew na lool daanaka bâtiment yi officiel amu fi lépp taalibe Sëriñ Tuubaa yokku lu nguur defit tàmbale ci sumoor ba nëgëni daa fekk taalibe yi jëf mu fekk si nañ loolu nag kon noonu nga xam yoon dox ni la soso ñaan nañ fexe ba gën a góorgóorlu ci doxi boobu mu bay sot mooy xam ne lu mu doon rek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 مد يده بخيره عندي جمع القادة لي خير الحلال والفكر ونسر بي دي سنت يبايو الكم دي سنت ما ييغا خامني امنا انتفاي بو ري سي ماغي دي نخ ماغي دي كوم موتيو اك دك دي سيرين بي نين ميغا سنت وا كوري ديغا خامني نيو سيت ماغي دي ginaaw bi nga xamne wacce ni ligel ci ma itam wacce wat na ko ci loxol serigne ousmane bi nga xamne mo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 def ko loo xam ne bëgg nga sa aajo faju ca xam ne suñ tubaab yi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di taxawaay ak yitte ji ngeen ci am na suñu borom kàttanal dëgëral leen mel ak fekk ak ba kenn ku ci la mu ci yéene ci bis bi suñu tubaab jàpp na ko mën na ko ñu ngi leen sant di leen bu baax di gërëm itam waa daayira Hizbut Tarqiyyah ñoom itam.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 soldat nag mooy koo xam ne samiha naa wa ataana lu leen sëriñ bi xas digal ak seen posture seen taxawaay di sant itam waa daayira Muqaddamatul Xidma ñoom ñi nga xam ne ñoo am tawféex barabu sëriñ Touba bii di jumaa ji ñoo amoon liggéey ci sëriñ Saliou Mbacké ak ñu ko fi wuti ginnaaw bi yëpp di taxawal liggéey bi di ko def ci na mu gën a rafet muy ñoo xam ne ñëpp xam nañ ñu doom ci sëriñ waaye dañoo jaay lépp jënd ko taalibe jël seenu der teg ci biti di sàkku ngërëmu Sëriñ Tuubaa te di ko ko seere ay jàmbaar yoo xam ne waxtu leen di wax ñoo xamoon seenu jàmbaar de mooy seen digg bi ñu xëy ñaari fan yoo xam ne dañ koy doon kon ñoom seen yitte ak seen taxawaay ñëpp xam nañ ko ndax walla yaxaafoona lawmata laa'im li ñuy def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 am na ñoo xam ne biir Tuubaa yëpp daaw ñu sori daal biir kër Sëñ Tuubaa gii toog waxtu ne dama koy fàttali mel na mag moo xam naa def sori daal ci biir kër gi kon loolu itam waruñoo gën a bëgg lu wax te ñooñu gën a jàmbaar ci yàlla foofu kon nag xëy na fañ àggoon bu ñu fa waaye fu ñu summee seen tànk war nañ faa suñu tànk kon ñu leen sant ñoom itam di leen gërëm di leen soñ bu baax ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi te xam ne liggéey bii kat képp ku fay ku ne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 daaw daaw jig ba woon ci taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ba ñu ñi ànd ci ñoom loolee itam gis nañ lu bari wàññi na ko ci dëkk bi ndax boo jaaree fii ci tookooru suñu seex xam ngeen ne ndox mi na mu fa daan rek bu ma saan taw kenn dootu fa mën a jaar waaye fi mu toll nii jafe-jafe bi xaw am nag mooy bassin moo fees loolu dinaa ci dellusiwaat ndax nap bi loolu dinaa ci dellusiwaat ci biir wax ji waaye bu tawee tuuti rek buñ taalee pompe yëpp lépp jàpp xam ngeen ne boo jaaree fee ci yoonu Mbàkke fu jafe woon nag mooy fi ñu daa tuddee sel bi foofee ca fañ defar la ak yeneen barab yu noonu ñu ko defee ci loolu itam làmp yi xam ngeen ne li tàmbalee ci poste contrôle ba àgg ci yoon bi ñoom doo ko sëñ bi santoon daal ñoo ko def ak yeneen làmp yi ñu yaata ci biir dëkk ba dëkk gis ngeen Tuubaa ni xarkaan yi ñu sopp ko ci leer noonu lañ koy def ci wàllu dimbali nit ak fàll yu bari bari ba ci bisu tey jii xam ngeen ne sama conférence bii may def te ca laa waroon dem sax ndax dañoo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 la dawla islaamiya li ñuy wax dawla almaliya la waaye Sëriñ Tuubaa suñu borom may na ko loo xam ne mayu ko kenn ndax nekk ci daw dawla almaliya ba noppi sëb dëkk li islam bi bañ ñu ko fay tere loolu xam nga ne ci di ko suñu borom njëkk na Cheikh Abdoul Ahad ci dogoom ànd ko njabootu Sëriñ Tuubaa yépp ñu ànd signé yi nga xam ne bëgguñ bëggatuñ ko bëggatuñ ko gis dëkk yi muy dox nag ñu furutuwaat ginnaaw bi yépp ku ci agsi teg ci sa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 waaye li may wax rek lu xew ci biir njaboot moom nañ bàyyi ñëpp bi jéggi ko seen bopp ndax du leen génn ndax loolu moo adduna ñoo ànd si biir kër bopp sax faaw am waaye nag loolu yàq dara ci liggéey ñoom seen seen njàmbaar ak seen posture ak seen taxawaay ñëpp gis nañ ko ndax yi fi te xam ngeen ne loolu gendarmerie ak police ñoom li seen itte mooy li état bi santaane ak li mu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 suñu borom moom afa anta tukrihu naas xataa yu'minu moom looy digle moom dañ cee ne rek waaye nag nit ñoom kenn bu leen forcé ci ne faaw nga def lii Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yooyu jamono dafa am ku ñëw nga xam ne li nga digle nit ñaa ngi làqatu di ko def li nga tere ci dëkk Cheikh Abdoul ne ko ah, man de digle tere rek ma ci wax ndax lii ma digle nga tere ko.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 yeesal mbindi sëriñ bi bind ko ci niñ ko mën a jànge di ak di ko traduire ci langue yeneen ak mboolem conférence yi ñuy def yi seen taxawaay fes na ñoom itam ndax xam ngeen ne Sëriñ Tuubaa lépp lu mu koy def rek ci xam-xam la war a sukkandiku mu mos def lu dem ci xam na ko ba lettre wolof bu ngeen gis Sëriñ Tuubaa ko bu fekkee am na yu ndax al-lughatu al-arabiyya nuzi'a bi nuur lisaanil kon xam-xam lu ñu defal sëriñ bi rek ci la war a tege kon ñoom itam ñu ngi leen di sant leen gërëm ci taxawaay yi nga xam ne diiru ñaar fukki at yi ñu ngi koy def ci màggal Tuubaa ba ñi réewoon ci biiru sëñ bi wala ñi gindi ko ci biiru sëñ bi gën a gindi ko ci sëñ bi ñoom ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay bu baax rawatina sumbuur yi bi nga xam ne sëriñ bi teg na ko ci seen kanam muy jaanaaw bi nga xam ne incha allah bu wàllu góob bi la tuuti léegi te mu ubbi diggante itam daayira Xuddaamul Xadim ñoom itam seen yitte ak seen taxawaay rafet bu baax a baax ndax màggal yi weesu yëpp gis nañ ci seen teewaay ñuy góorgóorlu ci lépp loo xam ne war may dëkk bi la wala jàpp neen dëpp doon jàngale Sëriñ Tuubaa lépp luñ ci man rek ñu fexe ba ba jindi nit ak leen teg coono ba ñi xamutul di gën a xam ndax nit ñi kat am na ñoo xam dañoo xamut dañuy agréé rek keneen di jàpp waaye ku leen gindi rek ñu nopp kon ñooñu tam ñu ngi di sant ci seen taxawaay bu rafet di leen ñaan itam fañ bëgg yóbbu liggéey bu na xidmatul ñi nga xam ne ñoom ànd ak waa mu xatawu di seetal yoonu jumaa ji ñoom itam ma nga xam ne la kilifa gu baax Cheikh Ibrahima daa wax rek bu xamoon li ne ci buubu ëttu sëriñ kon nag bu ñu amee tawfeex di seetal yoonu jumaa ji nañ ci génne def yi te positif taxawaay diggéenam commune Touba Mosquée ñoom itam nañ xam ne fii ñu nekk ndigalu sëriñ bi def bàyyi kon li leen sëriñ bi di sant ak leen ko soññi wax bu nekk mooy nañ xam ne la suñu kilifa bu baax ba waxoon rek sëriñ Saliou moom dama waxoon ñëwoon sëriñ bi waaye ne ren lépp loo xam ne lu ma war a def te mun ma ko def ma soññ ngeen ma ci waaye dafa a teew te mun xam ne nag naka jëkk buur yi ak chef de canton yi ñoo ko def Mansour Ndiaye bàyyee ko ñii ñu dugal taxaw kon ñoom itam nañ xam ne ñoo wutu sëriñ bi ci fànn ko ndax àdduna jëkk a ji duñu ànd woon ñu tàggu kon nag ñoom itam sëriñ bi leen fa teg ngir ñu jege nit ñi dox diggante bi ak njaboot yi taalibe yi ñu gàddaay ñëw fa kon nañu gën a jege di leen gën a diglu di ànd ak ñoom seeni jafe-jafe ak seeni métti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 wax naa ko la mooy marché gaar bi xam ngeen ne bu ñu ko tàmbalee yàgg na la ci Serigne Saliou jubloo ni tam mooy marché Ocass dafa xat te mu ngi di lekk kër yi dem kon bu soñoon ñenn ñi nga xam ne amuñu place yóbbu leen fa ngir foofu mën a fiix waaye gis nañ ne li ñuy wax saafara su jur jàngoor day bëgg nekk ndax nit ñi dañu fa yekkati ay bâtiment àggaluñ ko ba mu di ñoo xam ne def na naqari yàlla rek lañ koy def te loolu bu yàggee man naa dem ba indi yàqu-yàqu boobu kenn doxam fu mu jëm kon loola sëriñ bi jox na ndigal jox leen ndigal nañ xool nuñ ko saytu bu fekkee daal laaj ñu toxal ña ñu toxal ko ndax barabkat buñ la ko joxee luy bëgg ba ñaata koy defoo ko dara moo xam dañ koy wala ñu xool li leen leneen luñ fi may def ba mu dëppoo waaye sëriñ jox leen ci ndigal nañ leen jox dara nu mu a gaaw ñu seet nuñ defaree barab ba dindi ko. ba yéen yam fay dégg daal bëggatu faa dégg kon ñoom itam nañ ci def yitte te xam ne ndigalu sëriñ a wax sa yëkkati ko la jeex nag ñoom ñoo jël seen responsabilité seet ñu ca mën a taxawee ba loola saafara ko ndax loolu kat bu yàggee mën naa dem ba jur jàngoro jox ma kenn doxam fu mu jëm bu loolu jàllee itam sëriñ bi mi ngi yóbbante ak cant ak di ko teg ci loxol ci jiite réew mi président Macky Sall ci màggal gi ak dëkk bi ndax sëriñ bi ni ma ko faral di waxee amul yitte bu yitte njaboot gi ak yitte taal bi am ñaar nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax bi nga xam ne nab bi sonal na dëkk bi lool yónni na ma fa ëpp juróom-benn waaye gis na ay yitte ak taxawaay yi nga xam ne def na ko ci ba tàmbali na ko day liggéey bu rëy rëy nag boo xam ne xam ngeen ne. bu liggéeyee bu liggéeyee fukki fan wala ñaar fukki fan waaye def na ci jiite def na ci taxawaay kon sëriñ bi ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal ci barke suñu Tuubaa mi nga xam ne li mu fiy jëf tax yàlla na ko kon nee na sant na ko ci jàppale gi mu ko jàppale ci liggéey suñu Tuubaa bi waaye mi ngi koy sant jàppale gi mu ko jàppale ci liggéey dëkk yi ndax wàllu ndox mi forage yi def nañ fi ñeenti forage lañ benn bi moo moom la yóbbu ca hôpital Matlaboul Fawzeyni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 bu noppee sëñ bi waxal la boppam moom nag moo xam na mu ko bëggee na mu koy waaye nee na bu université bi jeexee rek moom dafa seen so ndax jafe-jafe yi ci nab bi da ko yokk ndox mi dafa jàllatu moo tax taataay yi bi ñu ngi ci sant bu ci waaye nag bu bëree bëri ndax dëkk bi dafa rëy kon loolee itam ñoom nañ ci bàyyi xel xam ne Touba day dëkk bu mag. boo xam ne li ñu ciy def lu ñu ci def rek yeyoo lu ko ndax dëkk bu Sëriñ Tuubaa dëkk bu fa ñaar ñi dëkkutoon itam yeyoo waaye li ci dëkk ci ay itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax président bu baax ci pëstéefam ak taxawaayam ak yitteem yi nga xam ne ànd na ko moom ginnaaw bu loolu jàllee nag bi ñu dugg ci programme màggal gi ni ñu ko fas yéenee defe waa comité bi daañu ko gën a leeralaat waaye ci tënk rek ndax xam naa du ñàkk lu ma ndax doomu aadama dafa mën a fàtte waaye problème mooy li gën a sëñ bi rek mooy alxuraan bi nga xam ne bu weeru duggee rek na ko kilifa bi daal digle ñëpp danañ ci maase ci ànd ko di jàng alxuraan ak xasida lépp ngir sàkku ci tiyaaba def ko addiya Rasulullaah def ko addiya Sëñ Tuubaa kon sëñ bi na loolu ñu ngi koy fàttali ñëpp ñu gën see góorgóorlu ci niñ gën a mën ci alxuraan ndax Serigne Touba kat luñ koy dàkkee rek nañ xam ne alxuraan ci lu jiitu kon seen bi ñu ngi sonj daal yëpp ak fu nit mën a nekk bu weeru teewa ñëpp maase ci dundal di weer bi te tàmbalee ko ci alxuraan alxuraan kër def ko addi Rasulullah ak def ko addi Serigne Touba itam di ko def tawassul suñu digg Serigne suñu digg Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu ngi ndokkee bu baax waa musaabaqa quraan bi nga xam ne rajo safara xanaa bu weer guddee sax la ñuy seen liggéey ci xalaat bu rëy bu rafet boobu ñu am nga xam ne Sëriñ Tuubaa lépp luñ koy dàkkee ci lu jiitu ñu tàmbali ko leen ji ñu fas ko yéene ànd ak ñoom ba ñu am ndam lu ëpp ci ndam lu ëpp lañ ciy séntu lañ cay xaar te xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa mu def Cheikh Abdou Lahad Mbacké daa wax rek yomb na. ndax day féetewoo coono bàyyi la seen di ci turu co comité organisation bi itam ñu sant kuréel gi nga xam ne ñoo yor mbay mi ñoom itam suñu ci am def dama ko daan def ànd ko euh, waa kër yowatu maam Cheikh Ibra Fall xarit Cheikh Baye Fall ndigal li ak seen ñoom ñoo koy waajal kon itam loolu ñu ngi koy soññ bokki taalibe bi yëpp ñu xam ne loolu.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 wax ji du mën a génn moo tax ñu mujj ko toxal ba déwén ndax euh, jataay ba am solo am solo boo xam bu ñu ko defee te lañ ci doon sént amuñ ko ci doom njëkk moo tax ñu puus ko ba ne nag ñu ngi koy def yëpp kon loolu ak conférence yi nga xam ne nag ren waa daayira ci ànd ko comité organisation bi ak commission culture communication bi Serigne Abdoulaye jiite moom itam conférence yi ñu tànn di ko def ci pinc yi ndax xam nga ne dañ def ay waxtaan yu bari ci télé yi ak rajo yi ngir gën a gindi nit ñi waxtaan ci sëriñ bi waxtaan ci tukki bi waxtaan ci njabootu sëriñ bi waxtaan ci ñu njëkk ànd ak Sëriñ Tuubaa waxtaan ci dëkku Sëriñ Tuubaa yooyu ay waxtaan yu bari bari la waaye daa am yenn yenn la yu ñu tànn yu ñu tànn ci at bi tànn yenn pinc yu mag di ko fa defee. loolu bokk na ci Serigne Mor Soxna Bousso bokk na ci ñi waxtaan ak Serigne Makhtar bi tudd ñoom ñaar ñëpp xam ngeen Serigne Mor Soxna ne ko Serigne bi fonk woon ak cër bi amoon ci moom Serigne Makhtar bi tudd itam xam ngeen ne Serigne bi ba mu bàyyi ko ca géej gi bàyyi woon ak Cheikh Ibrahima Fall njaboot ñu gën si moo Serigne am suñu jaxat bokk na ci ñaar ñi nga xam ne Serigne bi bokk na ci ñu mu téye woon ndax Serigne bi day ko wax ne maam Thierno ko wax ne ko. Maxtaar mi ngi fi ñëw Aliou ju ju rafet def indi ñoom xam ngeen ni dem ci wàllu diine la nga ma xamaloon itam la ci xamal naa ko borom tërbiyee naa ko it ba wóor naa ci ko si mu bokk ci ñu sëñ bi tey ànd naa moom Jolof ànd naa moom gànnaar ba ci njëriñ xam ngeen ne ci histoire sax bi sëriñ bi di teg eh, xeer bu njëkk ci njàkkee njàkkee njëriñ bi ñëpp taxawee. nee na ana maxtaar bint loo ñu woo bi defaat bi bi moom moo ko jox sëñ bi muy teg kon moom itam xam ngeen ak cëriñ ci yoon bi ci waxtaan yi nga xam ne ñu koy yi nga xam ne xëy na cëriñ boobu ak waxtaan bi ñu daa def ci yoor yooru bi mooy itam nañ ko daan defee ak conférence bi nga xam ne dañ koy def ci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 di sant itam ñi nga xam ne ñooy waajal màggat bi ci biir réew mi ak ndax léegi xam ngeen ne xëdëf ba ñu jubloon ci waajtaayu màggat bi léegi nii ñëpp dégg nañ ko ba bu agsee sax ñu ñuy jig di déplacer dem waaye fu mu àgg fa ne yëg nañ ne màggat gaa ngi jub ñu di ko waajal di fàttali nit ñi lan mooy màggat ak nan lañ ci war def ak bu ñu nan lañ fa war a def loolu nag adduna si ponk def xam nga ne tey boo demee masaar bi dinaan njiital la sëriñ Mbacke Faye moo ngi koy def waaye ci réew mi damay bañ a gën waaye amul benn dëkk boo xam ne defu ba boo demee bitim réew réew yëpp moo koy def léegi waaye nag nañ fexe ba bañ a waajal màggal bi ba fàtte bisu mag ndax waajal màggal kat lu baax la waaye lii ndigal dina mooy bisu mag kon loolu itam seytaan yi dafa mën a rax ci mbir loolu loo yëkkati ci lu baax day làngal moom boo yeexee mu dugal la ci loxo ne mën naa indi ko bu yàggee ndax nit ñi dañoo xeer xeer nag ñaar bu duggee ci mbir rek mën na caa indi dara ndax da gis ñuy dem bay waajal màggal gi borom di fàtt bisu màggal gi dajale alal ju bari di ko waajal màggal gi te bu ma bisu màggal gi accès sa doole jeex wala doo ci mën a def lu bari loolu mbiru seytaan seytaan mën na ca tàggat ndax nañ xam ne lii ndigal dëgg dëgg nag mooy màggal gi la lu baax lu baax nag. du caagin da ngay seet la gën a jub sam xel da nga dugal waaye lay ndigalee ci rek mbóot ba nekk loolu itam kon la ñëpp gën a bàyyi la ca des nag mooy jeexale ko ci war mooy dëkk bi dëkk bi Sëriñ Tuubaa dafa wax ne wacceetu ban maskana tibaa li sunnatin la maskana tibaa wa manfaan li kulli haadi muslim wa manfaan an kulli aadi mujrim waxaati ne wa xujjatan foofu itam يبرد يحو حجة واي دائما لجن ما ما حجة لمن بلغ في الإسلام ما يكين خل بقنا دم مكة تأمر كتر من فاهم نح ولله ولله على الناس حج البيت من استطاع لجده من استطاع يوم ما ما من من بلغ في الإسلام نحجة حجة سر أرادوا بجبل بلغ يا كان حجة لا يبلغ وحجة لمن بلغ في حجة بجدته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 moy daw ñi ak daw ni nek ci loxo nit waxon ni itam dëkk bi képp ku fi dëkk ku ne sa puju neex néegu ñax moy nek sa seeres ëlëk këru ëllëg bu àjjana moy nek sa seeres kër bu ëllëgee ci àjjana bi sëñ bi waxee loolu wax ne ku fi sam xel indi wu saw xel indi la motax ñëpp bur rek gaday ñëw ci dëkk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 sagalu seigne touba itam nag te kenn ko yene la Cheikh Mouhamadou Moustapha waxon ben taalibe rek bam ko waxe nako luma lay jappale ci liggéey seigne touba mo wax li ma jappale moy mooy fexe ba defar sa kon ñun itam li ñu wara a sagale sëñ Tuubaa mooy kenn ko ne fexe ba defal seigne jëm ndax lislaam moom du ci bir kenn du xol na mu waye ngedd mi rek ndax murta jaaxir lik baye lolay bëgg na moy ñéem ñor te lolou musuñ suñ nam lu suñu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 te bañ a neex nit ñi ak lu leen naqari ay nit ci du leen yilif di leen ragal dangaa war a seet lay dëgg ni rek waye am na lox xam yaq yàq jikko nii gone gu war a ci jàng waru ko tollu ci liggéey Sëñ da na ko gona yi ngeen andi ngir sama jëm kuñ ci andi ci yéen na kan, kan, ya, ngeen leen jàngal ta yar leen te ni leen ci liggéey waaye waxuma ngeen dajale def leen tak wala isuka kon ñu tollu ci jàng tam gor góorgóorlu ci ñepp dem di jàng ku ci yor su jàngi nañ la tàggat yar la boo génnee mën a amal njëriñ société bi waaye gone bu tuuti goo xam ne woo gutu loolu ci waxtu alxuraan sax seen ko mu dawal dawalu sareet loolu bu màggee ci dëkk bi ak jikko yi muy àndaale yàqu-yàqu bi kenn doo xam fu mu àgg te sëñ bi santaane di diglee ter jàpp na maa def dugg ci biir kër gi kenn ku ne wax na ni nga war kon commune bi itam ñoom it xam ne am nañ ci masuuliya nañ fexe ba tegaat nit ñi loolu ci yoon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 war a am posture war a sa posture war xam ki ngay fekk si lu mu doon foo koo xam ne ña ko njëkk xam ku ma sa dugg ci dëkk bi da nga sumb say waaye nga dugg ci jumaa ji benn xemmem teef lu mooy fatoo génn ci biti loolu du posture bi dara sa bopp képp nit lu yaakaar yaakaar caa jëriñu ëllëg wóoru ko fooye nit du yaakaar du fooye yaakaar daa wax wattandiku leen miine ndax nit lu mu miine lu mu miin yëpp te lu mu yëpp lu mu yëpp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 ñemeetuñu wax ngi dëgg ngir bañ bañ ko dal seen kaw loolu la jër ragal kóonoo ma xaqi mahma kallafakumul amr mënoo ne ci karaw nii ba di bañ ko laxas ni mënoo nekk ci karaw nii di bañ ko laxas ki ne sayyidul xawmi xaadimu ki ne ci karamu nit ñi mooy seen surga luñ ko xamul sax laa war a sant dangaa dalaa war a def cant bu fekkee yaa nekkul noonu ci lu baax nga fexe ba loolu dañ ci yow bu fekkee yaa yaa ne ci digg nag wax ni wóor laa wóor te jeexati ci yow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 ñoom itam ñu gën a bàyyi xel dëkk bi ndax Touba dafa rëy ndax fi may wax yow nii da ngeen di dégg sax ñuy wax ne Touba mooy ñaareel dëkk bi gën a mag ci Sénégal waaye weesu na ko ndax département de Dakar wax nañ ne un million quatre cent département Touba waa ANSD xuma ANSD dañ ko waxee xuma mooy ñi xayma seen xayma yi dafa baaxut ñoom un million deux cent lañ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 circulation bi tam dëgg loolu itam bokk ni ci li ko indi mooy li ma wax Tuubaa bu ñu ko bëggee jàpp dëkk bu diine di ko di ko àttee noonu indi day indi jafe-jafe day indi jafe-jafe ñoom te Serigne Saliou Mbacké daana wax ne Serigne Touba ñeen ak mango bi mu ngi tàmbale ci yemale ñu yàlla yëngu waaye tubaab benn quartier képp da ko da nga koy génne ba ëpp département léegi boo ko bëggee natt ci département yooyu kon ñoom te day am kon loolu itam mën bàyyi xel bu baax ndax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 amul ci fonctionnaire amul kenn kuy fay weer daanaka néew na fi loolu daanaka boo ci génnee hôpital yu néew day jeex kon boo doon xool tey li état war delloo Touba sax day mel ma manqué na lu bëri ci tëli yeeg bi assainissement bi Touba tey la biir corniche bi sax waaye biir corniche bi képp la koy defee ëpp na téeméeri milliard kon loolu li fi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 waaye xëy na li ñu ci li ñu ci tàmbali nag bu àggee dana ci dana ci indi woyofal ba ca des ñuy soññ ñi nga xam ne ñooy defar tëli yi ndax tëli yi ci biir dëkk bi kat yàqu na lool daanaka kenn amatu foo jaar léegi da dox ci mbedd ba àgg gis ñaar suñu bëgg daje kenn koy du moytu sama loolu itam waxoon nañ ne tàmbali ñu ko waaye xaw mel na ne xaw naa yéex xam nga lu tax. waaye nañ ci gën a góorgóor ndax bu ñu doxaatee ñaari semaine kenn dootuma liggéey ci biir dëkk bi kon ñoom tam ñu ngi leen ci soññaat bu baax ñu gën cee defaat yitte gën sant nag ci tër yi nga xam ne tàmbali nañ ci dëkk yi fan yii mu yoo xam ne soxla woon nañ ko te yàgg ko sàkk kon bu yàlla defee mu dem ko sotti faw ñu sant leen ci gërëm leen ci la ca des rek moom léeg nit ñi dañuy wax xam nga nit ñi moom liñ bëgg a dégg rek la وأنا اللي أمسلو ما اللي بدي نريك وحدهم جا سيف تعرف ما كده فما خير نيجي للي بدي دمك مر نهني في نيو نيو كسر أيد من كيف لين يروح تاني يوم فيديو كسر أصلا كسر أيد من يروح كده بيجي بيجي من ترى تبغى مو كده من يوم مر نارا ما يجي لي كده مو أتارو نام كده تخل ده يصير لوار أمر كده كده كده كده بوك بوك بفكر يوار كده يروح دين جوا هم بقول يوار سام سام كده بقول يوار نياح نياح وأني يوم لين بدي نه bi fi Abdoulaye di nekkee ci mujj gi boo tàggee boo tuddee Abdoulaye ñëpp mer ba Abdoulaye da ngay ñi ñëpp ne moo di tànn moom mi fi nekkee tam boo ko tuddee nit ñi de waroo ko gërëm moo tax loolu kenn lañ ci topp da ngay seet la war am nga di ne defuñ ci dara ci bakkan wala ñu def dara suñ jëm suñ jëm lépp jé lépp lu jëlee rek dëkk bi ak suñ tubaab tax ñu di ko def fi may jeexale rek moo ndax yoon yi danay jafe loolu fàttali naa ko sax ci jiite Thiès fan yii ñu ngi fi ñëwee. ma ne ko lu ñu mën a fexe ba teel ñëw ci dëkk bi ndax bu weeroo soxla duggee rek duggee ci jumaa ji dem Mbàkke dana jafe yoonu dindi bi noonu yoonu jaratu mbooloo yi noonu yoonu dara si noonu kon yooyu yëpp itam nañ fexe ba circulation bi gën a yomb luñ ci gën a mën a doon taxawaay li jeexee cant ak gërëm yi ñu ko jëm ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu média yi ci seen taxawaay ci liggéey bi nga xam ne dafay ko te am na ñu ko àndal ba liggéey bi mënoon a jot fépp ba ndax xam ngeen ne ñeneen si saal bëri kon bu ma nee àgg ci àdduna sépp seen taxawaay moo ko àgg ñu ngi leen sant bu baax di leen salaamaaleykum wa rahmatullahi